بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر إلى ربك يومئذ المستقر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطع أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثاج نبتليه فجعلناه سميعا بشيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وشرورا وجزاهم بما صبروا جنة وأهلها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ظهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كان مزاجها جميلا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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس قدر واستبرق وحلوا وساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفرا واذكر اسم ربك بكرة واسلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني منها اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كاد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاصرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألا تلك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعشى ثم أدبر يسعى فعشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها دحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله أكبر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 أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكره أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي بما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاقة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عترت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوذ زوجت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم شعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين الله أكبر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 إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نص لنص شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نسيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون الله أكبر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 تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تصنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يشركون على الأرائك ينظرون هل ثقيب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها ورقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها ورقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وشق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود خجل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بلت فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ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 sabbih isma rabbika al-a'la alladi xalaqa fa sawwa walladi qaddara fa hada walladi axraja al-mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati adh-dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tadhakka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 فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والصفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر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 قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أثقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذنب عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا ترك فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لتقى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 fa aghnee fa amma al-yatiima falaa taqhar wa amma as-saa'ila falaa tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis allahu akbar sami'a allahu liman hamidah allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر السلام عليكم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 وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار يحلون فيها من كذا هم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الحي لشديد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حام نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون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 كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل بك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا بابيل ترميهم بحجات من سجيل فجعلهم كعصف مأكول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 minal jinnati wan naas allahu akbar sami allahu liman hamida allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر السلام عليكم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 asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim sadaqallahu mawlana alazim wa balaqa rasuluhu nabiyul mustafa alkarim naam wasma xaala rabbuna wa xaaliquna wa raasixuna wa mawlana min alshahidin اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سحر والنسيان aw taxrifin kalimatin an mawdiha aw taxyir xarfin aw taqdimin aw taxirin aw siyaadatin aw nuqsaanin aw taawilin ala xayri ma anzaltuhu aw raybin aw shakkin aw taajilin aw taajilin xinda tilaawatihi aw kasrin aw suraatin aw sayqi lisaanin aw wuqufin bi xayri waqifin aw idgaamin bi xayri mudqamin aw ishaarin bi xayri bayaanin aw maddin aw tasdiidin aw xamsatin aw jasmin aw iraabin bi xayri lmakaani أفردت منا على التمام والكمال والمحصن من كل إلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواقزنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأ معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والسقاوة والضلالة والطغيان والنبينا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان aminna min xasabi alqabri wa min suali almunkar wa nakir wa min akli didan wa bayyit wujuhana yowma albaasi <clears throat> waati riqaabana min anniiraan wa yammin kitaabana wa yassir hisaabana wa saqil miisaanana bilxasanaati wa sabbit aqdaamana ala siraati waskinna fi wasati aljinaani wa rasuqna jiwaara sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaamu wa akrimna bi liqaayka yaa dayaani istajib duaana bi xaqi tawreeti wal injiil wa sabuuri wal furqaani atina jamii ma saalnaaka bi sirri wal i'laan wa zidna min fadlika alwaasi'a bi juudika wa karamika ya rahimu ya rahmaan allahuma salli ala sayidina muhammadi saaxibi sariati walburhaani bi rahmatika ya arhamar rahimin allahuma arfana warfana bi qur'ani alazimi wa barik lana bi ayati wa sikri alhakim wa taqabal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim allahuma sayyina bi sinati alquran wa akrimna bi karamati alquran وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل من كل بلاء الدنيا وعصاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وارحمنا جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي الخبر منيسا وفي القيامة سافيعا وإلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعدنا بهداية القرآن وعافنا بهناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا جنة بشفاعة القرآن وارفعنا درجاتنا بفضيلة القرآن wa kafir anaa sayyi'aatinaa bi tilaawati alqur'aan yaa sal fadli wal ihsaan allahuma arzuqnaa bi kulli xarfin min alqur'aani xalaawatan wa bi kulli kalimatin karaamatan wa bi kulli ayatin saada wa bi kulli suuratin salaamatan wa bi kulli juz'in jashaa allahuma arzuqnaa bil alif ulfatan wa bil baa'i barakatan wa bi taa'i tawbatan wa bi shaa'i sawaaban wa bi jiimi jamaalan wa bil haa'i hikmatan wa bil qaa'i xilaanan wa bi daali dunuwan wa bi daali sakaan وبالراء رحمة وبالزاي سلفة وبالسين شناء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالتاء طهارة وبالساء سفرا وبالعين حلما وبالغين خناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعصة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهي هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين allahuma balligh sawa ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaamu wa ila arwaaxi ashaabihi radiallahu anhu ajmain wa ila arwaaxi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalin wa ila arwaaxi aabaaina wa ummahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatisatina wa masaaxina xaasa wa ila arwaaxi jamii al muminin wal muminat wal muslimat wal muslimat ahyaai minhum wal amwaati ajmain haama wa ila arwaaxi ashaabi al xayraati min al muminin wal muminat allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin wa kun mu'izan lana min sharri zi hasadin masarri fammin wa sharri ayni allahu wa sharri sha'rin wa sharri al-khalqi insi ma jinnihi wa sawati summi allahu waftah lana kulla babin kunta fatihahu li salihina min al-khayrati ya allahu wasluk bina nahja rusdin wakfina zallan warudnaa jinna wa sheytaani allahu allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan tunajjina biha min jami awali wal afati wa taqdi lana biha jami lhajat wa taqdi lana biha jami lhajat wa tami biha jami sayiat wa tarfauna biha ala darajat wa tuballighna bi ahsan alqayat min jami alxayrat fi lxayati wa ba'da almamat rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azab annar sunu boroom ñi ngi lay ñaan ci sa mbaax gi yàlla na nga defal way jiitu jiitu yëpp yërmande ñi fi des yàlla na suñu borom guddal seenu fan te wéral leen te saafara jàngoor yi ak ràgg-ràgg yëpp yàlla na nu suñu borom nangul kaamil bu sell bi nga xam ne jàng nañ ko ci weeru sell mu jeex ci fan yu mu ji te defal nu ko ak gudd fan ak wér saafara jàngoor yi ràpp-ràpp yëpp te ñaan Seex Muhammadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér te may tuut tànk yi nga xam ne ñoo doon jàng alquranul bañ dalee ba léegi yàlla def leen ay mag magi lislaam mag ñu jub mag ñu jaar ci lépp loo xam day doxal alquranul karim ñi leen doon taxaw yàlla na suñu borom barkeel leen te def leen dëgg-dëgg fay ga gën ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen ci doon liggéey ci jumaa jeg ñëpp suñ borom saafara ràgg-ràgg yi ubbi leen bunti xéewal yëpp ci barkeeb sëriñ Tuubaa yàggal fi sunu mag ñu baax ñii lépp ñu jaarale ko ci sëriñ Aafiya mu jaarale ko ci yéen ngeen jot ci ñun am assalaam am arahma yàlla defal ñu lépp defal ñu koor gu ñu nangu tañ gën a góorgóorlu bu baax te xam ni lii rek mooy mooy mooy yoon yi mooy yoonu sëriñ biit amul lenn lu gën lii mooy jaamu yàlla ak liggéeyal ko te liggéeyal ko mun ta weesu liggéeyal ko ci alxuraanul karim kon nag liggéey bàngoog dañoo wax ni kaamil bi tey lañ ko doon tëj waaye tëjuñu lu baax lu baax ngi doog a tàmbali kaamil bi lañ doon tëj maanaam bi gone yi doon naafila waaye nag lu baax mi ngi doog a tàmbali rawatina nag ci fan yii ñu nekk kon nag ñun ñëpp ñu maase gën a góorgóorlu xam ni lu waaye doon def ci lu baax na ko gën a góorgóorlu ci fan yu mujj yii gën cee góorgóorlu bu baax te xam ni kat lépp loo xam ni def nga ko te yàlla ak sëriñ bi rek tax fay ga dana kawe lool te barab bii nañ ko waxee woon na ñëpp gën a lu ci baax a baax ñu dundal ko ndax dundal ko mooy li sëriñ bi bëgg te yaakaar naa feeñ na ci weer yu bu baax a baax waaye nag comme koor bu ñëwee dañuy jéng ki nga xam ni mooy yàqal ñëpp ku góor góorlu dana yomb ci yow waaye nag bu ñu fa jógee nag ñu gën a xam ni nag lépp lu ñu tegoon wàccuñu jaamu yàlla ci ñëw di ko dundal bu baax a baax a baax te bañ a yem rek ci dundal ko ci koor gi waaye ñun ñëpp nañ ci maase rawatina nag soxna yu baax yi nga xam ni macha allah ñoom it seenu taxawaay rafet na lool te gis ngeen rek barki dem bu xale bi jàng wax na ci lu am solo ci mbirum jigéen kon nag yéen jigéen ñi gën leen a góorgóorlu nekk ci ku baax du tee ngeen gën a góorgóorlu ndax gis ngeen luut daraballahu masalan lazina kafaru imraata nuur ak imraata luut jigéen ñu baax lañu woon waaye kaanata taxta habdayni min xibaadina saalihayni waaye nag xam ngeen ni dara jëriñu leen woon ca mbaax googe lu dul ñoom ñaar dañoo tàbbi sawara te ay jigéen la ñoon ñu nekkoon ci ginnaaw ab yonent kon na ngeen gën a góorgóor lu baax yoon waa ngoog kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu boroom ñu fekkee ko ay ati ati ati ati ati at di xam ne daal wax dëgg yàlla mbégte am na lool ci ndaw ñii nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo doon jàng bis bu set ñaari isib ak nisif waaye nag seenu njàmbaar ña tax ñu jàmbaar mooy ñooy ko def ci ñoom ndax xale bu ndaw bu ñu la jox muy am ñaari at juróom ñaari at nga mën a jël téereb suñu borom bi dugal ko ci moom ñetti at mu mën a taxaw jàng lu leer naññ loo xam ni macha allah dafa mel ni ci ñu ngi doog a jàkkaarloog ay micro doog a jàkkaarloog ay ay ay ay làmp te mosuñoo raf mosuñoo jaxase mosuñoo génn ci ba sori ci li ñu war a def loolu mel na ne kon liggéey ba sell na baax na te loolu rek mooy li am solo ñun ñëpp daal ñu gën a góor góor te xam ni moom sëriñ bi lim nu bëggal wax na ko te it ku bëgg dara maanaam lu mu mën di doon boo bëggee àdduna ju jag da nangoo liggéey soo bëggee alaaxira ju jag it da ngay nangoo jaamu yàlla.